sama gars yi mun nañ ni kii di àll commencé waat na jikko yu mu doon def moo nekk di euh, roube euh, tout le temps ba tax na nag euh, soo dégloo lu mu doon wax ak kii di soxnaam si lay nee na ko soxna Batoor bëggatul bokk ak moom petit déjeuner même bu dee sa grande grand déjeuner. moom mun nañ ni moo nekk comédien wu théâtre bi ba tax na parfois théâtre bi day dem ba day tàng mais waxam yi rek moo tax ñuy kontaanaat. te tamit euh, loolu dañu koy soxla bu baax ci série bi série moom daa war am am comédien ci euh, série bi te euh, chaque jour àll moom moom mooy indi li nga xamante ne moo nekk boobu lay humour moo taxit gars yi ñu ngi koy jaajëfal bu baax di ko ñaanal mu gudd fan am wér gu yaram te tamit gën a jàpp ci série rek moom moom bëgg nañ ko trop trop trop waaw rôle bu musée am na importance trop ci série bi jaa jëf nag sama gars yi loolu laa ñëwoon pour leeral ci vidéo bi di wax nag série bi nag moo ngi commencé tàng nag moo ngi tàng jër nag ndax euh, ñoo ngi xaar épisode 104 bi ndax su génnee moom dina métti trop waaw dina dina métti trop billaahi ndax kii di soxna Batoor du bàyyi Marlo ak dara te Marlo tamit du bàyyi euh, kii di soxna Batoor ak dara ndax euh, ñoom ñaa ñëpp a bëgg li nga xamante ne moo nekk victoire te yaakaar naa Marlo victoire si am moom moo war a am victoire ndax moom moo yelloo victoire bi te soxna Batoor moom yelloowul ak victoire jànge ji sama gars yi lu laa ñëwoon leeral si vidéo ngoon